que euh, ce qui s'est passé li xew kero yéen ñëpp gis ngeen ko dama bëgg rek leeral ndaxte Sénégal lu nit wax ñu weddi ko wala jàpp dama bëgg ngeen xam naka la demee li nga xam ne moom la ñu police jox te muy euh, compte rendu mooy dafa am ñaari nit yu ñëw fekk bus bi arrêté ko ubbi ko sànni ci ñaari cocktail molotov am yeneen juróom yu ñëw wër bus bi sol li nga xam ne mooy ay kagul maanaam ay nit yoo xam ne bëgguñu ñu gis seen xar kanam loolu moo xew. bi ñu sànnee cocktail molotov yi ci biir am ñu daw tëb ñi daw génn mais ñi génn am na ci ñoo xamante ne dañ jël seen téléphone jël seen saak jël seen alal mais li enquêteurs yi wax mooy ñoom ñëpp seen i bagages 100 après fekk nañ ko fa maanaam ci biir quartier bi fekk nañ ñu sànni fa bagages yi ba ñu foraat ko bi ñu wëree donc ña ko doon def jël ay bagages banditisme association de malfaiteurs maanaam def ko ngir jëriñoo alalu jàmbur nangu alalu jàmbur jëriñoo ko taxu leen woon jóg leen taxoon a jóg mooy tiitalaate xuppaate ak rey te noonu la amee noonu la ko police tënkee waxee ñu ko noonu léegi nag li nga xam ne moo am mooy euh, bu loolu amee jàpp naa ne ñun homme politique yi ak ñun sénégalais yi war nañu am dignité xam suñu réew fan la tool parce que terrorisme bi ñuy wax du baat boo xam ne dañ ko jël nii rek di ko jël di ko solal ku ne déedéet tubaab ak loi da ko définir dafa ne ki nga xamante ne day xupaate day tiitalaate wala mu jël li nga xamante ne mooy violence. di ko dóor ci ay nit ngir tiital leen ngir jot ay but politique ndaxte boo nekkee ci république ak démocratie boo amee objectif politique ci débat nga koy amee maanaam ci wax weccante xalaat ak élection bu fekkee nag doo républicain doo démocrate li nga bëgg boo ko amul maanaam peuple bi bu àndul ak yow votelu la wala defu la nangam ak nangam li ngay def mooy xupaate fexe nit ñi tiit euh, def ay bomb taal ay kër ak yu demeen te loolu yàgg nañ ko dégg ñaata ngeen dégg ci ay conférence de presse wala ci ay audio ak ay loolu nga xam ne moom mooy ay ay live ngay dégg dem leen taal kër diw dem leen taal kër diw loolu c'est le minimum li gën a tuuti dëkk yi respecté seen bopp yëpp loolu boo ko defee doo fanaan sa kër mais Sénégal rek nga koy def ndax dëkku tolérance la ndax dëkk la boo xam ne nit ñi dañoo dal dañuy maslaa dañuy muñalante ba loolu yëpp di mën a am donc loolu la ñu constaté sur le terrain loolu nag bu amee mënuñu ko tuddee leneen lu li nga xam ne moom la ko code pénal noonu la ko dictionnaire bi tuddee te ma wax leen yéen ñëpp ndaxte Sénégal tamit euh, dañu tàmm di wax rek te duñu duñu xool boo leen jógee fii ubbi leen dictionnaire ubbi leen code pénal ngeen xool lan lañ wax ndax dëppoo na ak li nga xamante ne moom la ñuy toppee ñooñu noonu wax nga ci dissolution parti Pastef dissolution parti Pastef euh, ajuwul ci procès wala ci décision de justice ndaxte ni ñuy amee parti fii ci Sénégal du justice moo la koy jox c'est un régime déclaratif d'association boo laajee ñu reconnaître la ki la reconnaître nag dafa am ay chartes yu mu la jox jox la loo xam ne ay obligation la obligation yooyu boo ko wàccee am nañ sañ ñu dindi ko mais li ñu seetlu ci parti Pastef mooy bi ñu fi nekkee ci ñaari at yu mujj yi seetlu nañ ne la ñu def la ñu wax li mu jur ci ay bakkan yu rot juróom benn fukki at ak ñett yi nga xam ne Sénégal am na ko en tant que république mosu fee am gis nañ fi nag opposant bu ne gis nañ fi coow lu ne mais mosuñoo gis ci ñaari at koo xamante ne li muy woote wax naa leen ko léegi ci tubaab mais bi ci gën garaaw ma dellu si ci gone yi waajal nañ seen bopp entraîner seen bopp ba mel nañu war a mel képp koo xam ne jox na leen ngàndaay di nga am ay xeexkat yoo xamante ne yu mucc ayib lañu doon loolu ci biir république ndax madame la ministre lu ñu war a wax la réew moo xam ne ku ne gis nañ ko fi kilifa bu ne jaar na fi gis nañ suñu kilifa diine yi résistants yi ñoom ak tubaab yi naka la naka la demee gis nañ fii ci biir réew mi Cheikh Anta Diop gis nañ ñi nga xamante ne ñooy président Senghor gis nañ président Abdou Diouf gis nañ président Ablaye Wade seen ay crise gis nañ ni ñu ko gérer mais mosuñoo nangu kenn koo xamante ne wàllu xeet wàllu violence ak yu demee noonu da nga koy bëgg di wax. donc Pastef u ex parti Pastef boo leen ko seetloo wax ji nga xamante ne moom lañ daan wax dégg ngeen ko lenn rek lay nirul na ñoom euh, dëddale sénégalais yi ak yokk xiiroo ak ngaayo ci biir sénégalais yi lañ seetlu ci seen doxalin. alors que ñun Sénégal réew lañ boo xamante ne li nga xamante ne moom moo ñu dajale mooy yaatal ak xajoo yaatal yaatu xajoo ak bëgg jàmm loolu mooy suñu réew donc bu demee ba nga xam ne politique bi nag nit ñi wóolootuñ carte yi gëmuñu ne ci débat mën nañ ci euh, convaincre ay nit ndaxte réew moo xam ne ci 63 ans def nga say alternance jóge nga ci partie unique dem ci multipartisme jóge nga ci ay plan économique ba tey ñu naan Sénégal presque euh, suñu PIB par habitant mi ngi doublé presque mais dëkk boobu am nga jaar-jaar am nga histoire nit mënula ñëw rek ne déedéet soppi leen lépp ci révolution ci ñaari at ñett nañ def nii nañ rey fii nañ taal fii bu ko defee lépp soppeeku donc loolu laa bëggoon ñu jàpp ko ci question boobu ñetteel bi mooy euh, defe naa ab sa Anne moo ko wax posé na benn question ci Juan Branco man dama jàpp ne ñun sénégalais dañu war a gën a fonk suñu bopp. fonk suñu bopp mooy xam ñun ñooy kan du caagin ne nag dañoo jàpp ne ñoo gën nit ñi wala du caagin ne dañu jàpp ne ñun dañu war a xeeb nit ñi déedéet waaye tamit nit fonk sa bopp yàgg defe naa ne ci wolof dañu naan ci jaamu yàlla la bokk fonk sa bopp mooy nga teg sa bopp fi la yàlla teg mënuñoo ñëw ci dëkk boo xamante ne ku ñëw rek bëgg siiw ñëw ci Sénégal def sa njombe dem sa yoon moo tax mbiru Juan Branco jàpp naa ne euh, tuuti na yées na ci ñu koy tudd ci conférence de presse euh, Sénégal ndaxte bu fekkee da nga am jafe-jafe sa réew wala danga am lu la naqari sa réew ba loo gis jàpp ne dañ ko war a yàq dañ ko war a taal mënoo ko def sa réew nga bind sa livre day wax ne nii la ñuy révolution nii la ñuy daanalee nguur nga ñëw Sénégal ñu lay jox kàddu jël avocat yu mag yi ne Sénégal yëpp teg leen ci ginnaaw nga toog ci kanam teg sa ordinateur di lire ay baat di toppandoo ay auteuru 19e siècle ak 18e siècle jàpp naa ne loolu du Sénégal lañ ko war a nangoo ndaxte yàlla def na suñu réew mi réew bu tedd la réew bu yàlla barkeelal la du du serpillère boo xam ne ku ñëw rek fomp ci say dàll jàll te loolu ñun waruñu ko nangu ba li ma gën a naqarlu man du maam du gouvernement mais man sénégalais mooy wax mooy avocat yu mag yi ne Sénégal yëpp ñu jël kenn ne cundum teg ko ci kanam muy wax ay wax yu yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon donc euh, man defe naa ne loolu jarul sori jarul sori tamit ndaxte nit la koo xam ne ci li ma jàpp euh, ñemewul li muy def ndaxte ñun li ñu xam ci résistant li ñu xam ci révolutionnaire yi ñu xam ñun ci Sénégal Lat Dior Thierno euh, Oumar Foutiyou Tall Cheikh Amadou Bam li ñu ci xam mooy da am loo d'accordul nga wax ko janoog tubaab yi bu ñu la wooyee ca bureau bandar wala ñu fekk la foofu ci euh, ci ci Tekruur wala ci Fuuta nga janoog tubaab yi wax li nga xam waaye nit koo xam ne dangay wax ñu daw gaaw dugal la ci oto nga daw kenn xamul fan nga ne kooku ñemewoo li ngay def waaw ku ñemewul li nga def jàpp ngeen ne ñun war nañ toog fii conférence de presse naan diw ak diw ak diw ak diw wax dëgg yàlla loolu jàpp naa ne Sénégal ëpp na loolu donc madame la ministre ma jox la kàddu gi nga nga yeggali ci loolu